Cheikh Ibrahima Diallo euh, di njiitali PJD bokk ci coalition benn Bokk Yaakaar tey nag xewal jàmm lañ xewloon fii ci kër gi puisque calebasse euh, émergence pour jigéen ñi euh, tey dañ doon seet si jigéenu PJD yi pour jox leen seen wàll ci calebasse bi ma tax moo taxoon ñi daje ndaje mi alhamdulilah rabbi alamina ndaje mi guddee na sax gaa waaye liñ ci bëggoon lépp ci teewaay ak ci ay discours ak ci ay personnalités yoo xamante ne danañ ñu dimbale ëllëg ci ñi mën a euh, battre campagne bu baax teew nañ fi ci diggante jigéen ak góor ñu ngi sant yàlla ci loolu euh, di leen wax ne euh, lii mooy politique politique da bokk ndey bokk baay amul xasse amul saaga dimbalante aussi jigéen mooy maillon bi gën a faible ci société bi suñ demee ba di ko xalaat di ko defal calebasse tuddee ko la première dame di madame Sall Faye Euh, loolu jigéen ñi initiative bu baax la te euh, présidente Awa Gueye moo ko initié ñu koy gërëm ci loolu wax dëgg mosu am Kaolack lu mel ni ñu ko ci initié di ko di ko ñaanal yàlla di wax ne aussi ànd bi mu ànd ak président de la République ànd bu sincère la wateel kii bàyyi kële loolu mënta nekk ku wateel moon Ndiaye Rahma na nga wateel Pape Demba bi wateel Pape bi tey na nga wateel moon Ndiaye Rahma loolu mooy li nga xamante ne mooy slogan bi nga xamante ne ñun ñëpp moom lañ gëm moom lañ moom moom moom moo ñu tax a jóg Kaolack nag euh, dëkk la boo xam duñ duñ bàyyi président de la moom la ñuy wateel ndax ñoom dañoo xam l'essentiel moom la fi yàlla teg moo am ay projet am moo mën a defa dëkk kenn opposition Kaolack su koo jox maire bi tey jii ci raw nag maa ngi ñaax waa Kaolack wan leen nag xippi leen seen ba di ngeen xool tànn bii tànnal ñu mooy tànn bi mën a defar Kaolack tànn bii tànn mooy tànn bi nga xam ne ëllëg si bi social ñu bëgg ci Kaolack dina mën a am dina mën a dina mën a euh, euh, dox parce que ñoo dégg ak waa Kaolack yi ñoo dégg ak si ñoo dégg ak bi ñoo dégg ak politiciens yi bon nag euh, maa ngi loolu moo lool ci jarul may guddal ne suñ sëriñ bi wax na wax joo xamante ne war nañ ko respecté mooy ne wax na ne commune bi Mon Ndiaye Rahma maire na ci wax jooju nag képp ko ne dëkk Medina ak foo mënti ne ci àddina bi loolu war na tànk ba wax jooju sëñ bi wax ñu dëggal ko waxuma ko nag pour ne dafa nekk sama sëñ déet dama ko wax ne nit ku baax su waxee wax ñi nga xamante ne ñoo koy supporté war nañoo fexe ba wax jooju ñu dëggal ko loolu ci bu bunt boobu laa ko waxee. waaleykum salaam wa rahmatullah